te képp koo xam ne nag bëgg na Ousmane Sonko bëgg na mu nekk candidat bëgg na mu jël réew mi 2024 kooku foog ñu taxawal da nga laal point bu am solo muy ci mbiru Ousmane Sonko parce que lii ba ma koy wax dafa yàgg depuis 2021 waxoon naa ne Ousmane Sonko nekk waxuma président mais kenn doondu ko dégg te gis nga jamono bi nekk na si ay jafe-jafe yoo xamante ni mën naa ne kii dañ koo téye ci wàllu baat travail sama xel comme li nga wax rek jikkoy musa musali matul kasaab la yor parce képp koo xamante yow da nga koo la jàngi woon te yàlla def nga mokkal alxuraan ba pare mu nekk sa for lool nga ciy liggéeyat ak jaamu yàlla yi du ci def lu am solo nga gis benn ndaw boo xam te ne jóg na jël ay wax yu ñaaw teg ko ci alxuraan en tant que dogo daara naka nga gisee yu mel noonu. waaw li ma koy gisee comme ni ko ñëpp gisee naqarlu ko comme ni ko ñëpp naqarloo kooku nga xamante ni moom la ñuy wax naan Cheikh Ahmed Cissé maa ngi jéggul sax si tur bi waaye kooku nekkul Cheikh. parce que seex suñ ko waxee mooy koo xam ne sëriñ nga te ko dugg na ci domaine boo xam ne su ko laalee dafay laal képp koo xam ne rek jullit nga parce que dafa laal li nga xam ne mooy suñu pas-pas muy alxuraan te yaakaar naa bu fekkee ne moom am na xam-xam wala su fekkoon ne jàng alxuraan yàlla ci boppam wax na ci alxuraan ne sax ñi nga xamante ñooy kàccoor bi ñuy diingat alxuraan lan leen yàlla wax faatu bi surat mi misli daf leen waxoon ne andi leen benn aaya bu fekkee ne lu ngeen wax dëgg la seen bu fekkee ne lu ngeen wax dëgg la kon Ahmed Cissé amul xam-xam te ñu ngi koy naqaru te man ñi nga xamante ni doomu daara laa doomu daara laa ci xam laa yëngu ci xam laa nekk keroog boo xamante ni jàkkaarloo na ak moom lépp lu ma war man ci man dinaa ko def te bu fekkee ne am na baati nag nañ ci jàkkaarloo incha allah rabi parce que ñun dafa laal li nga xam ne mooy suñu pas-pas parce que mooy alxuraan te nekk lépp loo xam ne am nañ ko tamit ci barkeb alxuraan lañ ko amee am na solo trop ñu bëri jàpp ne Ahmed Cissé moom moo taxawaay taxawaay musallamatul kaddaab mi xamante ni moo waxoon ne euh, dafay indi alxuraan lu mel ni alxuraan euh, tey moom mu ne alxuraan boobu noonu ay léeb la ay luppoon la mu ne yàlla datoon doon rek di wax comme ni ko wax yàlla ci yàlla jégal ba nga déggee lu mel noonu lan la travaillé sa xel waaw li mu gën a sama xel comme li nga wax rek jikkoy musa musalimatul kasaab la yor parce que képp koo xamante ne yow da nga ne jullit nga nekk doomi jullit ba a wax ne yàlla li wax ne ay caaxaan la ay léeb ak luppeen dafa mel ni yow ña doon weddi yow ci ñooñu nga bokk ba léegi nii donte nag moom li muy wax rek ne moom mi ngi woote woon ne jullit la waaye mi bokk ci ñi nga xam ne naafiq yi lañ parce que ne gëm naa dara ba pare di ko ayibal kon loolu la ngay wax gëmoo ci dara kon kooku naafiq la boo xamante ni képp koo xamante ni jullit nga nekk doomi jullit nekk doomi daara lii dana la naqari am na solo trop nu gis ne Ahmed Cissé daw na génn réew mi avant muy daw jéglu woon na taxaw ne maa ngi jéglu ak façon jéglu mu ñàkk kersa mu def bi mu dawee ñoom doon jéglu mu taxaw di leen saaga rawatina ki ñuy wax maam Makhtar Gueye mi xamante ne nii moom moo jàppoon Ahmed Cissé ginnaaw bi jógee kaso dugal ko ci Jamra ndax loolu jaadu woon nañu ko fay dugal. noo jaaduwut parce que koo xamante ne yow xam nga jikkoom yàgg nga jëflante ak moom xam nga ni mu mel ko waroo koo jël di ko dugal si biir ko dafa mel ni yow da ngay fat koo xam ne ab kàccoor la. kon lii ñoom ci boppam ñoom waa Jamra lii warul leen bett parce que ñoom yàgg nañ ko gis ci ay jukkoom yàgg nañoo gis ay communication ci wax yoo xam ne mi ngi koy wax ci loo xam ne tegginiwut ci wàllu diine ci wàllu aada kon suñ ko jëlee xëccaat ko tafaar ko seen bopp ñoom lii su amee warul leen bett moo tax daal nañu ñi ngi wax ne ki nga xamante ne moo jiite Jamra muy max euh, kii ma ma maxtaar moom lii na si jëlaat li nga xam ne mooy matuwaayam parce que lépp loo xam ne am na ci rek moom it da ciy bokk parce que lii si ñoom si lañ bokk parce que ñoom ñoo ko xëccoon dugal ko seen biir ñoo ko xëccoon dugal ko seen biir ci la ñuy continuer tudd ci sa liggéey balaa ñëwaat ci actualité parce war na waxtaan ci Ousmane Sonko gis na ba tey ci kaso bi askan bi daanaan gën di xeex ndax moom di rayante ndax moom dafa mel ni askan bi léegi beneen méthode lañ jël mooy di yooxu turam ci yenn programme yi balaa may ñëw ci Ousmane Sonko ay jamono waxoon na ci wax ju am solo wax jooju kenn tegewu ko balaa may ñëw ci lool bëgg naa ñu waxtaan tur ci mbirum seet ñu bëri nee da nga mën seet dipp ba ngay nekk ba léegi waaw gannaaw sant yàlla doomu aadama lépp loo xam ne yàlla daf la ko xéwalee rek mën nga koo waxtaanee ngir sante ko yàlla daf ñoo may seet ci domaine yu bëri yoo xamante ni ci wàllu waaye parce que lépp lu ci nekk rek luñ gëstu la ba xam la. Mhm. da laal point bu am solo muy ci mbiru Ousmane Sonko parce que lii ba ma koy wax dafa yàgg depuis deux mille vingt et un waxoon naa ne Ousmane Sonko nekk na nit koo xam ne yàlla may na ko mu tàggatal ko xolu nit ñi nit ñi bëgg ko mais nee naa ko na gën a defaraat ngembam li tax ma waxoon ko nag parce que am na lu mu gisoon bu yàgg. nee naa ko woon fii 2024 des na te dana toll jamono boo xamante ni bu fekkee defarul ngembam waxuma la président mais kenn doondu ko dégg te gis nga jamono bi nekk na si ay jafe-jafe yoo xamante ni mën naa ne kii dañ koo téye ci wàllu baatin même jamono bii nii sax suñ ko génnee woon ci prison bi sax mu nekk këram sax terewul ba léegi nii la nekk ci moom ñi ngi ko def ci moom parce que dañ ko téye ci wàllu baatin te la ko téye nag loolu fekk dindiwuñ ko liñ bëgg ci moom du ko am waxuma ne waxuma ne du ko nekk de mais liñ bëgg ci moom bu fekkee bëgg mu nekk candidat wala mu nekk président 2024 kooku force ñi def ci moom ay ñaan yàlla yoo xamante ne ak wàllu sarax yoo xamante ni moom moo ko téye. depuis en ba léegi nga waxoon ne Ousmane Sonko na jóg ci boppam sinon moom fa muy mujj du baax ñëpp gis nañ ko euh, tey ji Ousmane Sonko téye nañ ko la nga waxoon ci jamono jooju da ko seet ba gis ko wala nga xëy rek wax ko noonu. non nekkul lu ma xëy wax ko parce que lu ma gisoon la avant. Mm-hmm. xam nga nit ki lépp loo gisoon rek soo koy wax dafay nekk loo xam ne dëgg la. parce que su nekkutoon lu mu gis konoon du ñu yegg si ba jamono bi ñu teg suñu bët mais jamono bi teg si teg nañ si suñu bët parce que boo xoolee jamono bi maanaam ñi nga xamante ni sax ñi ngi doon ànd ak moom sax jamono ji ñu si bëri ñoo xamante ne war nañ ko ginnaaw jamono bi wéet na ci combat bi te ñi nga xam ne ñooy population bi nga xam ne moom lay yaakaaroon tamit ci wàllu dooleem population bi tamit seen doole dafa wàññeeku ci côté boobu moo taxoon ma wax ne Ousmane Sonko ne defaraat ngémbam parce que fi mu jëm képp ku f jëm da war a defar sa bopp ci wàllu baatin te képp koo xam ne nag bëgg na Ousmane Sonko bëgg na mu nekk candidat bëgg na mu jël réew vingt 2024 kooku foog ñu taxawal ko ci ay wàllu ñaan yàlla yoo xamante ni ak wàllu sarax yoo xamante ni moo war si moom su nekkul lool nag même suñ ko génnee kaso bi mu dellu këram tamit du tax mu nekk li nga xam ne mooy candidat parce que la ko téye du dara mais mbiru baatin moo ko téye te mbiru baatin nag baatin moo koy génnee. mbiru baatin baatin moo koy dindi ba tey dañuy continuer yow gis nañ yaa ngi lu am solo ci Ousmane Sonko rawatina sarax ak ñaan yi baax na mais dañu gis ngay def seet bu am solo mën nañoo xam ci lan ngay seete ba xam alquran la wala petaaw la wala lan la non ñun moom lépp loo xamante ni lu lislaam sib la ñu nekkuñ ci mhm. ñun lépp loo xam ne lu lislaam nangu la rek ñun ñu ngi si dañuy seet ci alquran dañuy seet ci wàllu ramlu dañuy seet ci wàllu kurus dañuy seet ci wàllu adat yooyu yëpp ay xeetu seet la yoo xamante ni bu ci nekk bokkut ak moromam mais yooyu yëpp yàlla def na gëstu na si ba géeju si ñu ngi si seetal jaamu yàlla te képp kuñ si seetal tamit yaa ngi gis résultat Euh, am na solo trop euh, gis na ni it Sénégal fi mu toll jamono jii euh, bëgg naa sax ñu waxtaan ci noob mais balaa ma ci ñëw ci kaaraange laa bëgg ñëw gis na parfois da nga gis ñaari xale yu ànd ci saay kenn ki rey na morom te pourtant ay xarit lan woon kenn xamul lan moo leen ba xam ndax léegi askan bi dañoo ñàkk kaaraange wala dañ kaa gëmatul. waaw léegi kaaraange dafa manqué parce que kaaraange mooy dimbale doomu aadama ci lépp lu mënti nekk boo xoolee jamono bi maanaam mbiri accident yi bëri na mbiri rayante bi bëri na leneen ak leneen bëri na mbiru feebar yooyu yëpp lan moo ko waral mooy ñàkk kaaraange kaaraange nag dañ see yor yoo xamante ni képp koo xam ne yàlla def na nga am ko su boobaa yow xawma kan waa yow mucc nga te dañuy wax ne nag képp koo xam ne mucc nga di nga mos yàlla dimbali ni am nañ loo xam ne dañ koy liggéey ci alxuraan boole ko juróom-ñaari garab yoo xamante ni dañoo am dëkk ñi am ci garab yooyu bu ci nekk ñi am luñ ci am def ko sunguf boole ko alxuraan jox la nga jëfandikoo ko loolu képp koo xam ne jëfandikoo nga ko ci kàttanu yàlla da am kaaraange te képp koo xam ne jug na pour liggéey la pour def la lu ñaaw su boobaa moom dana ko gis te kaaraange nag nekkul cangar kase kaaraange ci wàllu takkaay am na mooy xam téere la moo xam ga moo xam nomba la kaaraange ci wàllu jaaro tamit am na kaaraange ci wàllu oto pour bañ def accident tamit am na parce que kaaraange dafa yaatu waaye kaaraange ci wàllu kër tamit am na mais daal képp koo xamante ni ak boo ci yittóore incha allah rabbi soo ñu dinañ la ci defal yoo xam ne yu mucc ayib la ndax dafay ànd ak bayra ndax kaaraange kese ku ne xam ne ne wóorul. non kaaraange kaaraange moom dafay ànd ak bayra te bayra tamit mënul dem sans kaaraange mais kaaraange tamit mënul dem sans bayra parce que ñoom ñaar ñoo ànd képp ko am kaaraange war nga am bayra waaye képp ko am bayra tamit war nga mën a am kaaraange. maa ngi juum sax naan laa kaaraange kese wóorul waaye bayra bu nekk dafay ànd ak kaaraange am na solo trop mais bëgg naa ñu continuer tuuti ci mbirum noob gis na ne sëy yi ngi tas da euh, naan daf ko dëjul woon wala daf ko noobul woon na daal ci néegu sëy yi waaw suñ ñëwee si jàmbu xeeb bi mu réglé ko ci wàllu nopp noonu moom dama lay wax ne man dama ci sant yàlla li tax dama ci sant yàlla parce que dama ko gëm te dama ko xam ba pare jël si sama temps gëstu ci lu yaatu lu yaatu yaatu nekkuma di wax loo xam ne ci wàllu nopp loo xam ne dama koy fabriqué wala dara mais nopp dama ciy wax loo xamante nii dama ci wax loo xam ne kenn du ko teggi ci wàllu nopp ci wàllu ñaan yàlla nopp dama ciy wax loo xam ne kenn du ko teggi parce que dama ko xam li tax ma ne dama ko xam gis nga doomu aadama bi Euh, su juddoo lan moo koy dundal ba mu ba mu mën a ba man dara mooy wàllu meew yaa ngi dégg wàllu meew gis nga doomu aadama tey jii bu fekkee da koo bëgg noobal man su ma amee seen tur ñoom ñaar moo xam képp ku mënti nekk si ñoom moo xam képp ku ne mënti nekk ak képp koo bëgg a noobal jox ma seen tur ma liggéey leen ci loo xam ne ci benn butel laa koy dugal def ci meew ak meew bu mu mënti nekk nag ci kàttanu yàlla incha allah rabbi ñetti fan laa la may ñetti fan ma liggéey ko li ma koy liggéey gas ko suul ko su kàttanu yàlla kooku dana la bëgg dana am ci yow yërmande gis nga noob dafa am façon noob yoo xam ne baaxut parce que am na noob yoo xam ne dafay jàpp nit ki nit ki di métti boppam wala muy feebar mais noob bii nii nit ki dalay bëgg dafay am ci yow yërmande parce que ci meew lañ koy liggéey nekk lu ñu jox nit mu naan nekk lu ñuy jox nit mu def dara mais ñu ñoo koy liggéey defal ko suñu bopp te da nga gis résultat incha allah macha allah am na solo trop li nga wax ci euh, Ousmane Sonko ñu bëri jàpp ne Ousmane te bu demee dafay jël ndam mel ni cat daf ciy dugg te waxoon nga ko depuis 2021 mais gis nañ ni Macky Sall ginnaaw bi mu toogee ay ñoñam dafa wax ne Amadou Ba la jël def ko première te kon xam na ne Amadou Ba masul gagné euh, Parcelles rawatina sax muy wax na di gagné réew mi ndax loolu xel yan na waaw xel mën na koo nangu ci benn côté parce que nekku na lépp lu la sa xel jox rek loolu mooy am. Mm-hmm. que lépp lu nekk dañ koy xool ci baatin ba pare man li ma gis ci côté ki nga xam ne mooy Amadou Ba. ci jiital bi nga xamante ni jël nañ ko jiital ko donte nag dina metti ci côté am premièrement bi dina bëri ñoo xamante ni dinañ ko wan ginnaaw. Mm-hmm. dinañ ko daw dinañ ko wan ginnaaw waaye su góor góorgóorloo ci wàllu ñaan yàlla laa wax ci wàllu ñaan yàlla laa wax de parce que man waxuma ci wàllu xel waxuma ci wàllu gis-gis nii rek mais ci wàllu baatin laa ak li nga xam ne seet naa ko ba gis ko su fekkee góor góorgóorlu na ci wàllu ñaan yàlla ak wàllu sarax bu fekkee góorgóorlu na ci mën na ci am ndam ci côté boobu mm-hmm. waxuma nag ne dafay am ndam mais dama ne bu fekkee ne góorgóorlu na ci wàllu ñaan yàlla premièrement bi nag dina métti ci côté am mais ci góorgóorloo yokkul liggéeyam ci wàllu ñaan yàlla mën naa am résultat si jiital boobu ñu ko jiital. am na solo euh, dëkk bi metti na ndaw jóg na ñii di jaar ci ndox mi ñu ngi jaar ci avion yi yeneen ci yoon yeneen yoon yu wut yi maanaam mbirum passeport am passeport yom na mais visa pour ñu may la ko moo jafe mbirum papier ndax dañ ciy liggéey. waaw mbirum papier dañ ciy liggéey parce que doomu aadama lépp looy liggéey rek war nga see def ñaan yàlla surtout mbiru kayit te mbiru këyit dafa am yoo xamante ni moo la ciy dimbale am na loo xam ne dañ koy liggéey doomu aadama mu di ko jëfandikoo kooku su demee di uti këyit da koy am parce que alxuraan am na ci yu bëri yoo xamante ni ñëw na ci ci yu dox loolu ñu ko demee yi yi demee ni say euh, saytaan laa baana suñu yusra loolu dafay maye këyit waaye xale bi ila ahli masroon yooyu yëpp dafay maye këyit mais dafay aju nag ñi xam turu ki nga xam ne mooy ut këyit ki ak turu yaar ak ban réew la bëgg kayit su boobaa incha allah suñ ko liggéey luñ ko liggéey jox ko mu jëfandikoo su demee ñaani kayit incha allah da koy am ak fépp fu mu mënti nekk na ak fépp fu mu bëgg kayit am na solo nga koy jox kayit da nga koy defal ubbeeku wala parce que day naa ñu ne euh, mbirum ubbeeku am nga ci kii trop macha allah waaw dafay aju ci mbiru ubbeeku parce que doomu aadama moom lépp lu mu bëgg su si ubbeekul du ko jot ubbeeku xam ne yu tawféex la surtout ci mbiru yaasin am na yoo xam ne ci yaasin nañ koy liggéey ci wàllu ubbeeku ak nit ki lépp loo bëgg moo xam commerçant nga moo xam da danga bëgg a nekk nit koo xamante ni lépp loo bëgg nekk daal ci wàllu ubbeeku da nga bëgg falu lépp loo ma bëgg rek ci wàllu ubbeeku incha allah rabbi soo ñëwee ñu jëflante ñu liggéey la ko da ngay am ubbeeku ubbeeku nekk loo xamante ni lu yaatu la ci wàllu domaine boobu noonu mais képp ku si jëflante ñu rek incha allah dinañ si defal li nga xamante ni te am lu kawe sa njort ci loolu ci ubbeeku boobu laay laaj ndax dañ ci joxe ay jaaro wala waaw ubbeeku bi am na ay jaaro comme ni ma la waxee ubbeeku am na ay jaaro ubbeeku am na ay cangat ubbeeku tamit am na ci loo xam ne lu ñuy wàllu takk la xataa sarax sax dafa am ci wàllu ubbeeku am na loo xam ne doo ko sarax kay sarax am na ci wàllu ubbeeku parce que yeneen yi moom moo wax ci xadis ne seen feebar yi na nga xam ne mooy sarax mais tëju feebar la parce que yaa ngi bëgg ubbeeku mën a ubbeeku loolu feebar la am na sarax yoo xam ne suñ la koy waxee nga def ko da ngay ubbeeku ci wàllu jaaro am na ci wàllu cangat am na ci wàllu takkaay am na lépp daal ci wàllu ubbeeku am na bépp bu ci nit soxloo rek incha allah rabi suñu ci jëflantee mu am ci résultat ci kàttan yàlla. Euh, am na solo trop ñu ngi dañuy continuer ak yow ba tey euh, gis nañ ni mbirum cat dafa sonal ñu bëree bay lan mooy cat dëgg-dëgg ak cat bu la jàppee nan nga def ba mu dañ. waaw cat bëri nañu sonal gis nga doomu aarab yi dara dina ko jot mu jàpp ne dañ ko liggéey wala rab da ko jàpp fekk cat moo moo ko jàpp. parce que yenent yi moo wax ne am na lu ëpp sama xeet wala lu ëpp sama xeet ñu ngi ci bàmmee leen fu dugal du dara lu cat kon cat dafa nekk loo xam ne te doomu aadama mën nañ ko catoo ci wàllu làmmañ parce que dafa am làmmañ yoo xam ne dañoo aay dañoo yor gaaf am na bët yoo xam ne dañoo yor dañoo yor gaaf dañoo aay yooyu dañuy catu nit ki te nit ki su la cat jàppee maanaam sa yaakaar dafa yomb di tas ba pare tamit léeg-léeg sa bopp dafay faral di métti wala sa yaram di diis yooyu yëpp ci ay xeet la yoo xamante ni dafa yaatu parce que bëgguñu yaatal parce que dañ koy tënk mais képp koo xam ne cat jàpp na la ak nu mu la mënta jàppee ñu xool ba gis ta yow mi cat daf la jàpp am na loo xam ne dañ koy liggéey ci benn cangat boo xam ne dafay ànd ak làmmiñu bëy ku nekk xam na ne bëy lim mënee wax ak nu mu bëree wax ànd ak li nga xamante ni mooy fukki puso ak benn ñi jam ko si boole kom jox la nga def soo ko defee incha allah rabbi da nga tàggoo li nga xam ne mooy cat defit niif am na solo trop dañu ñëw ci daj dëpp gi sonoon la ñu bëree bëri gars yi ñu ngi naan lu nekk pour wéer mu nekk bëree bëree bëri Sénégal tey moo leen sonal ñàkk ngóora waaw mbiru mbiru ngóora nag dañ see yoo xam ne yu cosaanu mag ñi la parce que boo demee Saalum nga xam ne mooy suñu fekk baax am na loo xam ne benn ren boo xam ne ñun moom la ñuy liggéey ci wàllu ngoor a nga xam ne ren boobu keng la tudd keng nga xam ne soo demee Saalum li muy ëpp ci li muy sax mooy kaw jànj nga xam ne jaan yi dafay dafay dëgër këk kon loolu noonu dañ koy liggéey ci li nga xam ne boole ko alxuraan parce que boo demee ci aayatul kursi yu boo demee am na benn baat boo xam ne ci aayatul kursi duñ ko tudd par parce que parce que baatin la aaya boobu soo ko aadatee lay jox aadatu li nga xam ne mooy sakkara doomu bi aaya boobu noonu am na ci luñ koy si luñ koy bind ci adat buñ koy bind boole ko ren boobu ñu lay wax noonu jox la nga jëfandikoo ci kàttanu yàlla incha allah rabbi fii ba ngay amee maanaam daal kooku moom mën nañu wax ne yow sa dund pare nga ci li nga xam ne mooy ñàkk ngóora moo xam ndaw nga moo xam mag nga nag ak ku mënti doon pare nga ci li nga xam ne mooy ñàkk ngóora duñ fàttee téer yi aussi gis na ne mbirum émérite ak ndoxum sit daf leen di sonal trop ndax toogaay yàgg yi ndax dañ ci yëngatu waaw mbirum émérite am nañ ci ay garab mooy moo xam boo xam ne bu feeñ la wala bu nëbbu la wala koo xam ne dafa yor ndoxu siti parce que mbiru hémorroïde dafay dem tamit ba li nga xam ne mooy ngóoro doomu aadama mbiru siti tamit dafay dem li nga xam ne mooy yàq yaramu doomu aadama bi léeg-léeg mën na la indil ay jafe-jafe ci wàllu tànk yi bañ ak yooyu noonu yëpp yooyu dafay da koy def ci nit ki mais képp koo xam ne am na si jafe-jafe yi incha allah bi soo ñu contacté am na si ay traitement yoo xam ne dañ koy def soo ñu woo incha allah rabi ñuy jëflante ci kàttanu yàlla am na solo ba tey fi ñu koy tëjee mooy mbirum rab sonal na bëree bëri jigéen ñu bëri mën noo am jëkkër góor yu bëri mën noo am jabar ñi di gént mbirum rab ndax dañ ci yëngatu waaw mbirum rab incha allah képp koo xamante ni woo nañu ñu xoolal ko bu fekkee ne dafa yor mbirum rab bu fekkee mbirum rab la yor moo xam góor la moo xam jigéen la bu fekkee daf koy indi ay gàllankoor wala ak nu mu mënti defee ci moom rek ak nu mu mënee feeñuwaay ci moom rek incha allah rabbi su jëflanteeg ñun ci côté boobu danañ ko ci defal ay mbir yoo xamante ni dina tàggoog loolu parce que sonal na doomu aadama bi sonal na ni nga xam ne mooy nit ñi parce que bëri na ñoo xam ne ñu ngi koy jàmbat am solo trop fi ñu koy tëjee mooy sa jàngat ci réew mi parce que gis nañ taxawaayu réew bi na coow li bëri na kenn mënul xam fooy teg sa tànk tey jii lan ngay sànni askan bi waaw li may sànni askan bi dama koy njëkkee ci ki nga xam ne moo jiite askan bi wala ñi nga xam ne ñoo jiite askan bi nañ yërëm ñi nga xam ne ñooy askan bi parce que askan bi sonn nañ askan bi ñi ngi dee ñi nga xamante ne ñi ngi génn Sénégal di dugg ci gaali yi di jaar ci yoonu suuf bi ñi ñi ngi dee lan moo ko waral mooy réew mu métti mi kon nañu yërëmaat ñi nga xam ne ñooy askan bi askan bi delloo leen cër biñ moom ñoom suñ delloo askan bi cër biñ moom rek askan bi da leen delloo cër biñ moom kon nag mi ngi ñi ngi ñaanal waa Sénégal yëpp bi ñaanal waa bitim réew yëpp di fépp foo xam ne nit nekk na fa rek ñu ngi lay ñaanal jàmm te ñi ngi wax ne suñ kàddu gi fépp mu nekk fekk doomu aadama yàlla na la si jàmm te yàlla na yàlla def tawfiq di wax wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh